xoolee adversaire am nag moom mu ngi waaw genou bi la la teg si suuf am lu muy takk tib na ca omba suuf sa newoon ca omba la jël mu ngay ñuux ca ngembala ne na ko ko mu jël ko Ibra Diouf Mbewaan maa ngi lay ziar caw guy geen woon ginnaaw Keita Kacha moom lañ jàkkaar lool arbitre ngi wax ak ñoom mooy cinquième combat de la kabar na arbitre arbitre wàccal waay arbitre ba wàcc na caw guy gi moo nekk droite Keita Kacha nekk gauche dara xewagul de doori na ko xeex daa bëgg a gëdd de door nañu caw caw jël na kuu de caw guy gi jël na kuu ba de daw nañ jàppante sëq ngemb Saliou ba ñaari xale yi sëqante nañ ngemb de. waaw jàppante nañ waaw euh, xaw nañ ëppante poids tuuti rek daa mel ni kay kay tëkk caa moo xaw a poids wala euh, non non caw guy gi xaw a poids guy moo ëpp tuuti moo tax xale bi xeex ak moom soo ko jàppante ak moom ji wax na dëgg waaw looloo jaaru bu ñu la ëppee tuuti booy jàppi ponkol faw nga dóor ko ba pare door ko mën a jàpp téente bi ñu téente caw guy gi téena kay eh, kay taka caa téena ey lu muy def ne xanaa daari tax waaw daa yóotu ngeen li mënu koo jot mu xam ne loxo bi ci faari la war a tegu mu tibb suuf xajamal ko ndax mu bañ a tax wax na dëgg cey lam loolu ci caay caayu bëre la bokk wax caw téena ko ba mu dëgër Thiaw jàpp na ñaari ngemb de waaye mën a gula développé li mu bëgg a développé Keita daa mel ni day bañ ko xëj yëkkati ko Keita loolu lay bañ déedéet dara xewagul bëre leen la muy jàpp ngay dagg laa ilaaha illallah mu ngay dóor ca suuf génne na bopp bi xalaat naa daal ku sa bopp féete suuf mën nga am avantage jàppante bi yàgg na waaye action buy daan amagul action buy tax jël la am xewagu fi caw nag ku ñeme xeex la waaye tey xeexul. caw nañ ko da ngaa yóbbu na ko laa ilaha illallah dawaloon na ko de ah oui jël na avertissement arbitre soufflé waat na combat ba ñu nga jawaat ca Mor Thiaw maa ngi lay bëggee. yéen ñëpp bëggee naa leen di nuyu Mor Thiaw jàppante waat nañu de. Caw ak Keita mii day demaguñu cëng ñu mbay laar defaguñ leen lu saf xorom de bëree guñu bëree bu neex xeex ñu xeex bu sax jàppante daal lañu def Caw nag dafa mel ni su moytuwulee lii ñu koy def bu yàggee du baax si moom. ba tey arbitre baa ngi dànkaafu caw da war a bëri ndengeñ ba lañ lay tere gis nga ndengeñ bi ba tey la koy wax ah da koy jox avertissement caw guy gi bu sàgg dina jël avertissement bi de ah way bi ne na ko da nga koy dindi te bëri koy jox avertissement Cheikh Omar loolu avertissement la défensif la loolu caw ndengeñ taxaw défensif la eh, dóor nañu caw caw moytul loolu ndaysaan waykat baa nga way Babacar Diagne Mor Thiaw moom supporteru mbay guuy gi le Mor Thiaw nee na Mbaye Gouy rek am ngeen combat de musa Ndoye ngeen jëm doomu yarax bi waye ñaar ñi mom ñu ngi ci. Cheikh Omar daa mel campagne électorale ba commencé na de ko sa candidat. Sénégal. waaw Sénégal da mu nekk sa candidat xamna ne lu bax la lolu ndax réew mi ëpp ñëpp mo ëpp lépp waye ñaar ñi guñu bëreeguñu guñu wuté nak combat yi fi jotta jaar de ngoy door ci ca faar ya mana ma ko mané béré dal nekhna salu bi nga yakar ñaari xalé yi ya. amul lu dess ci ñom waaw Katia soo xoolee moo dàq bëre. mais kii daa gën diis. caw daa gën diis ba pare da ko ndengeeñ. waaw da ko freiné. li li li lamp euh, kii caw euh, euh, am. waaw. gis nga ndengeeñ baa ngi wax ak moom ba ndengeeñ moom la arbitre wax mu dindi ko gis nga. lu xew est-ce wuñu waaw mi nañu. mi nañu. seetaan nañu de nañu de gaa yaa ngi sot de seex saal ah waaw bariwul xanaa caw waaw bëre bi daa mel ni daal am na lu ci desee bën poids am amul naa daal doole kese nag doyul ci bëre doole day ànd ak bëne bëre waaw góor gi moom ko ko bàyyi mu tànn se Omar paa bi de li mbëri waddal lay tànn di yóbbu est-ce que li muy def tamit yoon la xool ko li jóge ci ngeen mu mbëri da lay for noonu xanaa loolu mooy géew bi dara du fi des. day ñaawul image quoi. waaw wax nga dëgg. waaw te su fekkee mbër waddal nga dara nga soxla ko da koy jël. waaw soo bëggul dañ koy sànni. way boo waddalee dara da nga ko war a génne. tey soo caméra nii génne ko. soo seetaan image day mel ni mbalit. bien waaw moo tax ñu koy dindi noonu. kon da géew bi daa war a set te daa war a ndax euh, euh, làmb léegi international la ku nekkoon seetaan. football lu mu tuuti lu ci nekk dañuy arrêté match bi dem dindi ji ko kon ñun tamit suñu lii dañ ko war a rafetal. bien sûr waaw. loolooy dëgg Saliou Ba kon na géew bi set te arbitre ngi wax ak ciow de nee na ko ndengeñ boobu défensif la Thiaw bàyyi loolu xel mënoon ndengeñ taxaw lolou dañ la jox avertissement djel nga ci ben am nga ñaar avertissement te mi tàngeen ciow Amar arbitre bi daan papaam daan na arbitré papaam jiite arbitre yi nga papu daan wax ñoxor papi daan arbitre di top ci bu ar daan ñëw paa bi daan jiitu ñu topp ci ginnaawam. ba léegi boo ko gisee naa ko xàmmee. na ko yàlla jéggal. amiin génn àddina. eh na jëli ko gis nga delloo nañ fañ nekkoon rek. caw ndengeñ nañ la de waaw moom itam ñu ngi ko naan ndengeñ bi de ndengeñ day ànd ak bëre ndengeñ foo muy ànd ak bëre Cheikh Omar ba ñu ngi wax ak yow ci ndengeñ bi yow laa ilaha illallah am na lu mu bëgg de Keita Kacha am na lu mu bëgg de loxo droitam bii mu téye caw bu sàggane des na ko yóbbu de caw li ngay dóor dalul xeex laa ilaha illallah waaye lii métti na di waaye bëree métti waay Senghor yo wadd ngemb yaa ngay tas yi lang wàllug teen la ku ñëw ci pind bi ngay taxaw atte tooñ lii mooy atte tooñ garab gu mel noonu amoon nañ ko dëkk ba Cheikh Omar atte tooñ jamono yi ni nekk xale jote jotewan ci pénc mi dañ naan kaay ñu dem àll ba buñ demee ne ca garab ga atte tooñ nga bàyyi leen da ngeen di xeex ba doyal kenn du atte ëffël dañ lay dóor ba say bokk tey génn si xomar yow mos nañ laa ëffëlam. ëffël waaw xam naa luy ëffël. ëffël nañ la ngay xeex. ñu dóor la wala nga dóore. des fois ma dóore des fois dóor ma. ah mas nañ laa duma ba nga forcé daal. déedéet du ma may daal de. ah nag ku duma way duma ne kuy duma waate bés ñëw nañu duma la moom. déedéet mënoo dëkk ci duma waate moom. faw bés ñëw nga am moom. waaw waaw mënoo bañ a am defet moom xanaa say defet mën naa néew. caw guy gi de xalaat naa mooy ñàkki combat bi ndax mu ngi ee eh, caw ngembam li tas na di a ah, woy laa ilaha illallah waaye yow caw mi combat bi mitti na tey di jël ma ngembal caw guy gi yow jël ngembal caw guy gi ngembal a dañ na moo ngay dem ca kot suba ngir mu takkaat ngemb la Elimane Soukay takk ngemb la kookoy Ili Soukay école de nit ba da jon ñu ngay takk ngembal caw guy gi leen jako caw guy gi ñu ngay takk ngemb la La ilaha illallah. Caw guy quý ñu ngay takk ngemb la. Ndeysaan yéen ñëpp bëgg naa leen. cant gis cant waaw moom Ada Fass la wax Ada Fass doomu Fass Ada Fass bu Ndakaaru Ada Fass guy cey boobu lépp combat ak Luc Nicolaï Abu Sefa ngi nii Abu Oro Abu Sefa waa kii du Galaay Galaay bay la eh waay Galaay waay Galaay day jekki-jekki rek riir jekki-jekki rek feeñ mooy doomu ndeyu Assane Fall global textile ca Parcelles ku baax a ngoog Assane Fall moo yarute baax Assane Fall global textile moo yarute baax nana ko ab yar yombul Cheikh Omar fooy filmé da yër rek yow loo yër a nga moytu de machine yi jàmbur de ah arbitre soufflé waat na combat ba de caw guy gi ak Keita Kacha hey caw koy gën caw door na xeex laa ilaha illallah lii moo tax xare yi wal di dem ba pati xam nga ñaar ñii ni ñu tolloo seen combat jël bu war na cee mën a am warul sax a yàgg benn yàggaay bi ilaha illallah sukki ay jëkk sukki caw guy gi Ibrahima Ña Souleymane Faye Souleymane merci waaye man booy Dakar dañ koo dóor ba mu tëdd waaye loo xam day boo sàgganee neexuma ne bu génn jël avertissement yow caw boo génnee jël ñetteel avertissement encaisse ñaar caw guy gi mbërëm mbomboy la dëkk ak looy tal bëri dañ lay gañe caw guy gi kacaa da koy gañe awoy kayta kacaa gañe na ko avertissement nga am ñaar caw caw yow demal ñibbi rek caw ndaysaan mu ngi koy encouragé c'est fair play a ah woy ay xale caw yaay jàngatee ko rek ñu ngi saafonte waaye caw mu jàngati saal xale day jàng bëre